bienvenue, vous êtes la TMS TV, la chaîne qui vous montre tout ce qui est caché. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. pour recevoir nos informations à temps réel. asalaamaaleykum mbokku internautes yi téléspectateurs yi safoo la TMS TV ginnaaw bi ñu leen ziare jël nuyoo bi teg ci loxo PDG Alaaji Thierno Moulay Sow mu wasaare ko ci njaboot gi ak taalibe am di jàmm ak yi ñu ngi am mbégte ak kontaan di ñëwaat ci seen émission Euh, TMS Actu TMS Actu nag ma di ci ànd ak euh, les confrères de la maison oustaz euh, Fall ginnaaw bi ñu ko nuyo félicité ko aussi ci reportage bi mu demoon ànd ak jili fële ca ca Touba oustaz nga nuyu ak téléspectateurs yi lay seetaan sur la TMS TV. doyen na ngi lay fay nuyoo di nuyu itam mbokk internet yi ñuy top ci la TMS TV di leen ziara bu baax di leen fekk fañ nekk di leen jox seen wàccuwaay moo xam ñi nekk ci biir réew mi la ak ci bitim réew di nuyu kilifa gi muy alxaaji Thierno Moulay saw ko ñaanal yàlla barkeel ko yokk ay la wéral ko ba lii mu nekk di ci liggéeyal suñu borom yàlla suñu borom dolli ko ci fan yëpp di la nuyu itam bu baax di la jaajëfal danga ngaa baax rek di nuyu itam ñu nekk ci réseau bi lu Fallou Jibi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar jërëjëf. ana waa Touba ñu ngi gis naa ni nga jàppale sa oustaz. <laughs> Badou ci liggéey bi waaw. oustaz mu ngi noonu yàgg naa ko dimbale moom yàgg naa ko cee génne. ah bon. <laughs> maa ngi lay fay nuyoo doy di la mm-hmm. jaajëfal bu baax di la euh, sant bu baax a baax ci émission bi. di nuyu notre PDG El Hadj Thierno Moulay Sow di nuyu Oustaz ak ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi toog jàkkaarloo ñu la TMS yi di jaajëfal bu baax ñoom sëñ Fallou Jibi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ci côté technique bi waaw ah, mais man bala ma leen ah. Ah, ba ma apprécié. nee leen jaajëfal rek xaw ma chaque jour ñooy nekk si gannaaw. waaw mais buñ paree gis bu ko topp. mais jibi moom nuyu Fallou moom daa doy waar moom. ah moom dafa euh, voilà ñu ñëw maintenant sur le xam ngeen ne dialogue national bi suba la dialogue national nag amoon na fi. Mm. amoon na fi ba ñu dëgmale élection yi. Mm. ah bañ koo amalee nag. opposition bi te bu ñu waxee opposition bi nga xam moo fi ëppoon doole te ñu nekk ci nguur gi dañoo boycotté woon dialogue ne duñ fa dem tey nag yàlla def ñu ci pouvoir woote dialogue d'abord oustaz li may njëkk a laajte est-ce que tey jaloog boobu tey euh, ña nga xam ne tey li ma wax léegi ne ñoom ñoo woote woon dañ ñi woote woon dialogue ñoom ñu bañ ne demuñu. Hmm. tey ñoom ñu woote est-ce que ñoom war nañ dem uy ji maanaam ñi nga xam tey ñoo nekk ci opposition war nañ dem uy ji wala war nañ dem uy ji. jërëjëf maanaam mu bañ jërëjëf doyen wax nga ko xam naa bu fekkente ne euh, maturité bi ñu xaar ci ñoom de mi ci ñoom moom. Hmm. Euh, ñoom ñëpp dañoo war a dem wuy ji maanaam parce que euh, liñ naan mbaam moom bu la weqee nga weq ko. da ngeen yem. Hmm. maanaam toppante amul amul amul solo. Hmm. contexte yi aussi nag du benn. parce que ah, dialogue lan moo changé. waaw du benn puisque itam ku ne xam na ne président bi fi nekkoon mooy Macky Sall. Euh, peut-être euh, réew réew mi yëngu woon na ci fànn yoo xamante ne nii. Hmm. surtout wàllu justice bi daanaka dañ dafa demoon ba ñëpp gis ne affaire jaay doole la maanaam boo àndee état bi fi nekk ñu ja ñu ñu loo wax dara du la ci fekk boo àndee opposition bi fi nekkoon ñu jàpp la tëj ñu demoon nag ba daanaka Sénégalais yu bari du samay wax na wax Sénégalais la demoon ba remarqué ne <laughs> justice bi léegi tëddeewul njaaxaandaay parce que ay. décision de justice day ñëw ñu bu favorable ci côté opposition bi duñ ko appliquer bu fekkee seen côté la ñoom ñu ñu ñu ñu appliquer ko bu fekkee aussi itam opposition bi lañ ko jox dinañ dugalaat ay recours pour jéem a cacher verdict boobu pour rek bañ. opposition bi am na donc xam nga dialogue moom boo xoolee ref daanaka réforme ci wàllu justice la rek. loolu la rek waaw ah, léegi nag léegi nag amoon na fi. Hmm. bañ gisoon ne xëy na na waroon a tëddee njaaxaan ay tëddewu ko moo waraloon tey bii président bi wootee dialogue te boo xoolee dialogue bi ah, bi mu koy woote. Eh, nekkutoon ci wàllu comme nii nii moo dialogue bi li ko waraloon mooy booba problème mu date la ñu amoon élection yi. parce que boo fàttali ko booba con euh, waa conseil constitutionnel ñoo bindoon kii président bi pour wax mu def concertation ak ñi nga xamante ne ñoo seq wàll ci la yóbbu nag ci la jàppoon datu datu dialogue yóbbu ko fële ne euh, jam ñaajo mhm. euh, pour ñu waxtaanee ko fa. donc a ak jàpp date élection yi quoi. ak jàpp date élection yi léegi na ñii ne jàpp date élection jërul loolu li li li li conseil wax ak li président a a def wuute na. donc jàpp conseil jàpp date élection mën ngaa xool bànqaas yi nga xam ne ñoo concerné élection yi rek nga waxtaan ci ak ñoom jàpp date loolu yombul. boo xoolee woo mbooloo yëpp voilà ñu ñu bari loolu taxoon démb ñoon parce que daanaka Sénégal ñëpp la ñëwoon tëggkat sabar yeeg <laughs> waykati làmb yeeg ah mais ñooñu ñooñu bokkuñ bi réew mi tolloon boobu li liñ bëggoon a xam loolu soxla wuñ boobu soxla wuñ fi woon ñooñu maanaam mumbaay boobu jaru mumbaay boobu jëru ko woon daal hmm. alors boo xoolee bi ñu demee hmm. gis nga biñ defee dialogue bi waxtaan yi finalement lan lañ mujj décidé daanaka lañ jàppoon lépp bi ñëw yi conséquence yi daf ko yàq. daf ko rejeté donc moo lay war ne ne kon dialogue amutoon mais bu mbay moo amoon. yu ne yu ne xawoon na hmm. ak bii nag nga xam ne tey dañu gis ne justice boobu nga xam ne moo fi nekkoon bi fi ma kii nekk. musu baat bi moom du soppeeku moo fi nekk ba tey bari na itam ñu fa nekkoon ñoo fa nekk ba tey. waaye nag xëy na jubbanti lañ ko bëgg def maanaam dañ ko bëgg a jubbanti. bu ah, jubbanti rek bu ñu ko waxee mooy corriger jubbanti jubbanti lañ ko bëgg a def moo tax nag ñu woote. Hmm. ñi ko si ñi ko ŋànk ñëpp pour ñu waxtaanee ko gis nga sax lancé nañ ay plateforme yoo xamante ni ni kenn ku nekk citoyen am nga possibilité dem dugg ca wax ban gis-gis nga am ci wàllu justice bi. donc loolu nag pour man idée bu rafet la te bu ko ñëpp wuy yee itam lu may lu la parce que loolu la ñuy xaar ci ñoom. franchement d'accord euh, Djily oote nañ dialogue l'actuel pouvoir en place qui n'a même pas fait deux mois. Hmm. tey est-ce que tey opposition bi war nañ dem wuy ji pour ne pas fay fay fay leen ñoom lañ leen boycotté woon. Hmm. beneen bi mooy tey. Euh, bu fekkee ne peuple bi dañu voté a cinquante quatre pour cent ne jox nañ majorité euh, projet bii ngeen ñu proposé parce que ñoom dañ dem en campagne am un projet buñ buñ proposé sénégalais yi sénégalais yi voté voté leen. Mm-hmm. est-ce que waruñ jël seen responsabilité maintenant ah jël ay décision posé ay acte ay léegi ñu dem ci peuple bi encore mais ni dañu dem laajaat encore peuple bi lan lañ war a def est-ce que tu ne trouves pas loolu am na tuuti contradiction merci doyen balaa may ton sa question damay rectifier tuuti oustaz li wax ne problème mu date la am ñun amuñu woon problème mu date ñun dafa am ko fi nekkoon fokkati suñu date bëgg ñu imposer lu ko neex ñun amuñu woon problème date parce que élection yi dans les normes am na ci date bu ñu ko waroon a jàpp. waaw bu mu waroon a am. waaw février février la waroon am. 25 février voilà. Mm-hmm. yàlla nattoo ñu nag njiit boo xamante ne comme ni ko oustaz waxee rek euh, lim moom pour moom li mu bëgg moo war a am doonoon jouer ak ñun autour di xool naka lay élection yi mën a favorable côté looloo tax mu di changer ay date après dialogue bi benn benn benn la woon rek waaw ñu ne bon parce que teg na ko si yoon ñu ngi waxtaane ñoom ñun am ñu woon problème daj dañoo fokkate woon li Pa Assane naan sunub data <laughs> wala nu mu koy waxee noonu Pa Assane Seck baax a baax <laughs> jox ñu sunub date euh, pour ñëw ci li nga wax ci woote bi moi je pense que bu opposition bu wuyu mën a comprendre bu wuyu jiwul lu ñu mën a comprendre la di ngeen ko nangul man dinaa personnellement dinaa leen ko nangul. Hmm. parce que euh, wax dëgg yàlla buñ ko tegee ci fayantoo même pas fayantoo sax. Hmm. Euh, maanaam ci logique waaw ci logique. mun hmm. nañ taxaw taxawaayu opposition bi fi waa ñoom parti Pastef taxawee woon que ni dialogue bi amul njariñ mooy li ngay wax sànq ne. Euh, est-ce que jotul ñu poser ay actes au lieu ñuy demaat di laajaat. di laajaat xamante mooy réew mais man d'accorduma si côté boobu. que ni dañu dañu war a poser ay actes moi je pense que ñu ngi poser ay actes laa bëgg wax depuis bi ñu faloo ba léegi. Mm. mais boo xoolee xam nga tey justice Oustaz wax na ko léegi dafa bokkoon ci li Sénégalais yi gënoon doon xeex di ñaxtu di wax que ni justice amul Sénégal. wala boog tëddeewul ñaaxaanday. Mm. dañu jàpp ni justice bu fi nekk rek da ngay da da ngay da ngay dépendre ci pouvoir exécutif bi moom moo lay conditionné comme lañu doon wax ku Macky Sall bëgg a tëj moo lay tëjlu ku tooñ benn ministre. mu tëjlu la wax lu ko neexul mu tëj la donc tey bu fekkente ne ñoom bokk nañ si sax ñu jàppee ay victimes nguur gi eh, nguur gu bees ñoom dañ leen a jàppee ay victimes de la justice ci nguur gu mag Sall parce que jàpp nañ loolu moo ci teree mën a bokk Ousmane Sonko ak yeneen ak yeneen yu ci bari bari yoo xamante ne tey mën nañ leen jàpp ay victimes donc bu ñu toogee ne dañu bëgg a woote réforme pour xoolaat justice bi lu xel mën a comprendre la et lu jaadu la xam nga tey oustaz mu ngi koy wax sànq. ci dialogue bee soxlawuñu woon. Euh, mbooloo bi ay artistes yeeg mais li justice la boo xamante ne doyen moo ci bokk yam Oustaz moo ci bokk yam moom Macky Sall ñoo ci bokk yam moom Ousmane Sonko ñoo ci bokk yam ñun ñëpp au même pied d'égalité la ñu war a am ci ci kanam justice bi donc ku ci nekk c'est normal ñu xool tey Oustaz bu jàppee ne am na benn côté boo xamante ne gis na ne ni justice bi doxee ànd àndu ci dox na ko sànq am na ay plateforme yu ñu teg yoo xamante ni mën nga ci woote dox bàyyi jili jàpp ne ah man kat côté bi dox na ay jàpp ne man nii laa ko gisee ku ci nekk joxe sa xalaat ñu xool li xamante ne euh, bu ñu ko defee li ñu doon jooy ci wàllum justice dina dina dina fi jóge donc lu lu xel mën a nangu la lu xel mën a nangu la mm. mais nag quant à opposition bi moom bu ñu wuysiwul lu waay wax man leen ko lu leen waay wax man de jàpp naa ne sax dinañ wuy parce que xam li bàyyi jili wax rek gis nga euh, il faut ñu xam ne ñaari dialogue yi du benn bii nii seen présence dañ ko soxla parce que li ñuy waxtaanee ñoom ñëpp a ci yam xam nga tey jii. bu bu ah, mais jaraw bu njëkk ba bu soxla wutoon ñëpp wax na ko léegi <laughs> <laughs> nee amoon nañ am suñu. amoon nañ suñu dara président bëggoon imposé woon loo xamante ni wutoon kenn te kenn mënu ci woon dara parce que gis nañ à l'époque ni mu demee woon. Hmm. mais cette fois ci euh, li ñuy waxtaanee wax dëgg yàlla dafa concerné ñëpp. maam tey jii ña demoon ca dialogue bee bu ñu leen gisaatee fii loolu lu raisonnable la. d'accord muy ah bon <laughs> waaw ñoom ñëpp. parce que même d'accord mais oustaz. attends man xam nga man. Mhm. Euh, dafa am aussi tamit loo xam ne dafa xaw a ëlëm suma xel tuuti parce que xam nga affaire droit. Mhm. affaire affaire euh, justice mhm. droit. maanaam ay loi la. du dëgg moo ko régir. nga tey ñu ne dañuy def réforme de la justice. alors est-ce que jarul woon ñu woo les professionnels droit ñi nga xam ne ni seen xel dafa màcc ci droit. moo xam avocat yi moo xam juge yi moo xam magistrat yi et cetera moo xam les agrégés de conseil constitutionnel parce que am na fi on a des d'éminents juristes dans ce pays la est ce que jarul woon ñu woo euh, maanaam maanaam personne yooyu nga xam ne nii tey ñoom droit rek lañ xam tëjoog ñoom def ak ñoom benn conclave laaj leen seen xalaat pour parce que nag niñ ko élargir nii jombul dinañ woo ñoo xam ne ni sama maas gi nga xam ne xamuñ dara ci droit nga bugg leen dugal ci wax ji est ce que jaru ko jaru woon ñu limité ko ci ñi nga xam ne seen xel xam-xam màcc na ci droit. xam nga xam nga xam nga euh, boo xoolee ñi invitation yi ñi ñu invité ñëpp nekkul ne tey jii boo xool ñëpp dinañ fa jël parole parce que am loo xamante ni du xalaat ñëpp ngay déglu. Ah, mais nag ñëpp ba pare ba parce que nag kenn ku nekk boo demee buñ la wooyee c'est pour te tànn boo amee loo nga wax ko. d'accord da ngay def pour toog wala tàcc. xam nga loolu tey li ma bëgg wax mooy. tey plateforme yi ñu teg pour nit ñi jaar xam nga foofu moo gën a gaaw pour nga wax sa doléance. Euh, bu fekkonte ne dañ ko yemale ci ñooñ nga wax rek. waaw su boobaa opposition bi nga xamante ni ñun xamaguñ sax na opposition am na am déet parce que man instant bi xamaguma kan mooy chef de l' ah, li ma bëgg wax euh, li ma li ma bëgg wax mooy. waaw tey bu fekkoon dañ ko dañ ko yemale ci ay nit rek. su boobaa. maanaam ci les xam seen xam ñoom rek te droit la maaj su boobaa da gis ñii opposition yi su boobaa loolu pot buntu potaxul lay ñoom pour commencer nag jug di ñaxtu c'est-à-dire Séné Sénégal fi mu toll nii lépp acte yooyu posé mu concerne maanaam sénégalais yi faaw nga tëdd ci njaaxaanaay ba sénégalais bu nekk man cee gis boppam. kon yow looy def da ngay tàggu sénégalais. non kon ñoom lu ñu de. waaw non non du looy mais am na point yoo xamante il faut nga def concertation ak sénégalais parce que xam nga lu tax. sénégalais yi ak quoi qu'on puisse ñoom ñoo fal ñi fi nekk. kon tey jii mënoo jël nag fal goog ñoo du caa génne nag da ngay jël seen sañ-sañ ci lépp am na loo xamante il faut nga diisoo ci ak ñoom parce que wàllu justice ku ne xam na ne Sénégal góom lu fi boo xamante ni du ma ne faj ko yomb na maam da ngay gis koo xamante ni sax nekkul ci dëgg ñu koy topp même sénégalais bi mooy jug ne diw mi de nekkul ci dëgg beneen sénégalais comme moom ñëwaat ne diw ci dëgg la nekk. donc mu nekk ay problème yoo xamante ni finalement yow yow mi àtte boo ànd ak sa conscience rek pour nga juger day xaw a jafe te euh, yàlla bi suñu borom sax daf ñoo wax ne bu ñuy àttee nañu àtte ci ci ci lu sus ci dëgg. kunu xawaamina bil qist shuhada lillah tey nit ki bu defee dara. bu defee dara ñu xool ne lii mu def lii ak lii moo ci war ci ay daan ñu ñu ñun ñëpp ñu constaté ne suñu justice nangu na ko ne ku def lii lii lañ la war a teg su boobaa Sénégal yi dañu war a ànd ci loolu mooy tax bu ëllëgee su ma jugee nar a def lu mel wala bàyyi jëli jug nar def lu mel noonu dina xalaat ne ah lii kat boo ko ji defee daan yi moo ko ci fekkoon mais bu fekkente ne tey jii réforme yi defuñ ko ñu bàyyi la fi nekkoon mu continuer rek dinañ fi àtte nit ñi ne oui c'est normal ñu ñu àtte fi nit ñi ne non c'est pas normal. mais Oustaz loolu nag moom góob dina fi jóge. àtte nit oui c'est normal nit maanaam. ko justice mënul am avocat am. waaw voilà justice mënul dëgg la waaw mais nit ñi xam mais parce que am même loi yi dafay am ay interprétation. effectivement maanaam ñaari juriste. effectivement ci benn loi. kii interprète ko la ko même même au de de de loi ko ni mu war a tëddee ak ni mu war a doxee sax Euh, je te donne juste un exemple ci côté kaawu le cas de Ousmane Sonko ak coowalam ak état bi am na ñoo xamante ne arrangé wu leen duñ ci masa d'accord même si bu fekkente ne juste dafa tranché li nga xamante ne mooy dëgg yi man arrangé wu ma du ma ci masa d'accord loolu du du du jug Sénégal maintenant le plus important kay mooy comme li nga wax rek li nga xamante ne mooy tukkee ci dialogue bi mu doon de des des ay décisions yoo xamante ne dañ ko basé ci ay ay ay ay loi yu yu yu yu wóor yu fondé yoo xamante ne tey du du dañuy déglu doyen rek doyen ne ah man lii mooy sama xalaat ñu ne doyen mii kat bokkoon na Pastef. Hmm. kii kat bokkoon na xeex bi. a xool nit ñi fi ñu ñu bañ a xool wala bokk nañu xool lu man suy kat suñ ko joxul mën naa génn xànni war naa génn sànni eh, eh, ñu xeer nañu tënk loo xamante ne loi la. droit. en tant que tel nañu tënk loo xamante ni droit la en tel loolu moo a nekk loo xamante bu ci génnee yi dinañ gis bopp mais quant à defee lii sénégalais bi mën na ci gën a gis boppam mën na ci meex loolu moom bu fekkente ne ñoom ci loolu la ñuy basé wu pour mi duñ ko mos a liggéey ñoom doxuñ loolu sax xam nga boo xoolee <laughs> atte gis nga yàlla sax gis nga miraas miraas hmm. nga xam ne suñu borom moo ko jàngaleel boppam da nit day faatu non non non surtout Sénégal la nit ñi faatooguñ dama lay dama lay wax lu leen. <laughs> Ah, waaw non xam nga yaa ngi dugal oustaz xam nga caution bi nit. bi nga xam ne ay ay loi nit ko defar bi nga xam ne suñu borom moo ko wàccee. yéen di ci tënku. mais du benn nag. du benn parce que yéen. seen caution ba mu wàccee bi léegi. kenn changé ci benn benn ci wala foofu laa jëm nag suñu question bu ñu foofu laa jëm nag moo tax may lekk waaw moo tax may lekk foofu laa pourtant ñoo bokk lu ñu wax dama mm. moo am fii di ko mm. laa loo xamante ni ni da ko xalaat ñu bind ko loolu laa bëggoon daal moom même bu ñu bu ñu ne woon quatre-vingt-quinze pour cent des sénégalais lii lañ d'accord bu ñu ko defee ñëpp ànd ci bu subaa da nga gis ñeen génn def li maanaam sénégalais la yàlla bindee mm. lu ko arrangé arrangé na ko mais lu ko arrangé wul arrangé wu donc loolu nag mooy loo xamante ni day indi ay jafe-jafe ci réew mi daal li am solo ba am solo mooy. Mhm. il faut ñu teg rek maanaam ay loi yoo xam ne képp koo xam ne da ngaa jug ngir bëgg a yàq réew mi ci ay xeeti wax wala ci ay xeeti jëf wala ci ay xeeti doxalin maanaam ñu teg la daan yi méngoog la ngay def. ba bu ëllëgee ñii tëj ko dina bari de. waaw mais baax na. bu fekkee non ah. important. gis nga wax nii c'est très important xam loolu doyen normal. parce ah, loolu c'est normal xam nga lu hmm. nga dëgg moom. Hmm. ñaari dëgg moom benn dëgg am. dëgg la bu nekkee Pastef ma nekk APR bu ma bu bàyyi ji defee nag su dul noonu yat bi koy dal bu man su ma ko defee moom war a dal. amul ndax yat bi dina dal. Ah, kenn mais parce que ki fi nekk ministre de la justice bi fi nekk. ñëpp seedeel nañ ñi nga xam te ñoo yor réew mi. Mhm. président premier ministre ci kaso bi lañ nekkoon de. Uh-huh. dañ leen woon yéen tuumaa leen lii jàpp leen. Uh-huh. waaw bañ leen jàppee donc ña jàpp. man jot ne ci yoon lañ ko teg. Uh-huh. bu dee loi lañ appliqué. mais pourquoi ñu dem ba génne leen. léegi li lan moo fi changé pourquoi mënoo jàpp ne li leen génne yoon la. ah yaa ne léegi ñaari dëgg mënut a am de. waaw moo moo tax may moo tax may la léegi yow ni nga gëmee ne. ni ngeen jàppee yoon la. war ngaa mën a gëmee noonu li leen bàyyi itam. ah, ah li leen bàyyi moom protocole la. ah <laughs> bi ah, mu génne nee waxtaan am na waaw doyen may ma loolu doyen may ma loolu. waaw bàyyi mu ñëw may ma loolu. waaw maanaam fi ma la bëgg a wax bu ne média sénégalais bul insulter média sénégalais. non non non parce que bu ne la média nga ne boo wax média te ñoom seen rôle mooy informer. juste c'est vrai dama ne la dama bëggoon a wax dama doon àggale te yow àggale woon dama bëggoon a wax ne média bi. maanaam jub jubal jubal saa man lii mooy tax ma ne yow duñ juboo parce que tey boo nee li leen génne protocole la nga ne ma lu la wóor ne protocole. yow ñu toog yaa dina xam ne oustaz protocole la yow Bassirou Diomaye Faye ngeen ñoo toog wax ba ñu génne yéen. mais Ousmane Sonko wax na ne waxtaan am na. lan mooy protocole bi tax ñu génn lan la. xam nga protocole mooy kuñ jàpp

Macky Sall ñu waxu ne kii ne moo yebal ay nit Ousmane Sonko moo génn wax ko loolu ñëpp dégg seetaan nañ ko waaw waxee ko ko ay yàq ay waxam déglu rek Oustaz da ngay déglu <laughs> loo xamante ni ak li Sonko wax bokkul Sonko daal bu defee lu jar ñu a ko danañ ko non non waxal li wax rek déglu ma wax la li Sonko wax daal laa bëgg nga wax yow lan la wax déet yow mi ah, ma expliquer ak waa ko waxee lu mu ci mën di doon rek hmm. ni ko waxee amul solo xamoo lan mooy li ëpp li ëpp solo mooy li am waaw mooy li am ñëw nañu waxtaan ak moom. waaw mu ne leen lii mooy samay condition condition bi waaw. lii ak lii. mu ne te te ñetti condition yi yi mu leen tegal amul benn buñ ci d'accord. loolu déggoo ma de. loolu amul benn buñ ci d'accord. kan moo ci d'accord. Ousmane Sonko la dafa ñetti condition yi yi ñu tegoon pour waxtaanee ko amul benn. mais moom da koo mën <laughs> di dugalaat diw ci liste da ngeen a wees. xam nga waxtaan mu bëgg wax ne protocole amul te moom siis jëm fa mu leer ko ne lii protocole la loolu laa dul nag. non non Oustaz parfois il faut qu'on accepte les choses bu fekkente dara dafa am

Euh, yéen ñi ngeen xam ne ay maanaam ay nitu diine ngeen. Mm-hmm. tey euh, nit tooñ. Mm-hmm. tooñ sa moroomu jullit. Mm-hmm. ngeen dem ci yoon. mu ko ne yaa ko tooñ. nga dem ut avocat fay ko lu bari. nga dem ñu fexe ba wóorbati affaire yow daal lay jox dëkk. loolu lan la ci lislaam xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ñii àtte ñett lañ. ñetti attekatam kenn ki mi ngi àjjana ñaar ñi ñoo dem sawar ki xam ki xam dëgg ba noppi du àtte dëgg waaw yow de ñu ngi àtte ci kaw kaw Sonko boo ko bàyyi te ñuy dem safara ca bokk fekk mu gën a baax ci Ousmane Sonko noonu nga koy àtte. mais jërëjëf eh, ko gën a eh, ko mu konde bàyyi ko mu konde. ñoom boole <laughs> ah déet ni eh, looloo baax. Oustaz Oustaz li mu am moo tax mu bëgg na mu bàyyi ko xel li mu wax nii dafa war a bàyyi xel. <laughs> Oustaz continué Oustaz nga ne ñetti ñetti façon àtte moo am. waaw wala bañ a leen ñaar safara mooy ki xam dëgg ba noppi attewul dëgg waaw mhm. xam dëgg ba noppi wël mooy mooy li nga def wëlbati atte bi mooy xaalis te wala leneen teew tax mu waaye daal la mooy li nga def yaa ngi dégg mooy li ma jëm <laughs> àjjana mooy ki nga xam ne dafa xam dëgg ba noppi xam ne dëgg gi nii la demee mu transé ko ci atte ci digg bi kooku mooy ki jëm àjjana mooy jëm àjjana waaye mooy ki xam dëgg dëgg atte dëgg très bien ki nga xam ne daa xam dëgg attewul dëgg ak ki xam dëgg ba noppi ñu am nañ ko compal jox ko ko mu soppi mbir yi ñaar ñooñu ñoo dem sawara léegi nag xam nga yàlla daf ci côté boobu dafa wax ne mm-hmm. bi mu ne na ngeen yéen jullit ñi na ngeen taxaw ci àtte dëgg doon ne donte seen ci seen bopp la sax donte yow yaa tooñ sax da ngay nangu ñu àtte la ci dëgg donte say ñaari jur la sax Hmm? donte say mbokk yu la gën a jege la. Hmm? moo xam ku bari alal la moo xam ku néew alal la. Hmm? moo xam ku am la moo xam ku ñàkk la. loolu jafe na mais nag li ko waral mooy comme li nga wax léegi. par par parloo bi ak xaalis. waaw xam ne tey jii diw xam nga tey jii mooy affaire peut-être duñ ci affaire Bah Diakhaté bi am nii. nga xam ne li mu wax nit ñi gis nañ ko dégg nañ ko su ma man mënumaa comprendre ay ay nit jóg taxaw ci buntu tribunal ne dañ koy jàppal tànk di wax ne moom waxul dara deful dara. alors que nag moom mi nga xamante ne wax nañ sax wax ne maanaam li li xay naan jënd na jënd na glace. maanaam loo. def na ji glace ma terminer may ma terminer waaw du ma ko may terminer laisse-moi terminer laisse-moi terminer après. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw lu tax waruñoo dem di ko jàppal ta Ousmane Sonko bañ ko coowal aj saali yi ba mu fi génnee maa def moo deful ay mbokkam dañoo génn fii di manifester wu te amul kenn moo defam deful dëgg la ko duñ ko jàppal li ma ci doon wax xam nga boo hmm? boo méngalee ñaari mbir du benn day def la même chose tey jii lii kaddu yi paa paa jaxate génn xaw ma paa jaxate xaw génnee hmm. lii bu ko defee ay reetaan la mais def parce que toog na fii barki démb non wane ne am àndu ci non dégglu nag oustaz fi may waxee ak fi ngay wax bokkul man foo toog naate damay affirmer waat samay propos kani d'accorduma ci li ma wax mais li nga wax ne wax na ko lan moo tax ay nitam génn dem di ko kaasal daan ko dañ koy dañ koy dañ koy jàppale mooy nitam dama ne su ma gisee ay nit yu taxaw buntu tribunal waaw ne dañ koy jàppal tànk kon day mel ne ñoom waaw mooy yow bi nga am wala li ñu def dégguñu ma de yow man gis-gis bi ma am ba ne Paa Jaxate li mu wax d'accord ma ci ñoom mën nañoo am gis-gisu ne li mu wax dëgg la. du yoon dañuy dem jàppal ko kon ñooñu ay naafeq lañ rek. <laughs> laa ko dama leen ñaan benn affaire. Mhm. Euh, af tey ñoom ñoom heure bi ñu nga tribunal. Mhm. suba incha allah dañuy ñëwaat. Mhm. comme ça bu ñu ñëwee fekk tribunal bi. am na mu prononcé ñu débattre ci. incha léegi fi ñuy daane rek mooy. appel. boo leen di lancé tey. Mhm. Euh, tey réforme yi tey boo leen doon proposé tey yan réforme ngeen di proposé rek ci tënk rek. lu mhm. gàtt parce que temps bi jeex na. man de boo ñu joxe ci man daal damay bëgg baat bi ñu utilisé. waaw maam comme dañu mooy jubbanti. waaw nañu xool fépp foo xam ne dëng na. waaw fépp foo xam ne dëng na. Mm. ñu jéem a xool nuñ ko waxtaanee ba jubbanti am ci ba nga xamante ne sénégalais yëpp dinañ ci gis seen bopp. parce que tey jii. mais nag loi mënut a e-, mënul ànd ñu xaw a leen ne mu bële oustaz. waaw d'accord kii daf koy sol mu jot ko ñu soloo ko kii mu ëpp ko kii jéggi euh, euh, ko. xam nga loolu mooy loolu mooy xam nga xam nga lu yenu maanaa. Hmm. injustice ñun xam nañ ko. xam nga hmm. tey lu yenu maanaa nit ñi xam nañ ko lu yenul maanaa nit ñi xam nañ ko. très bien tey li fi nekk. maanaam ñu yemale ñëpp daal. waaw li fi yemale sax mu maanaam nañuy yemale gi mooy kenn ku nekk selon la nga def. waaw la ca war ci ay daan. Hmm. ñun nañ ko waxtaanee ba ne ku defati nangam a nangam kat lii ak lii lañ ciy teg lañ la ñuy teg ci sa kaw léegi daal indépendance justice bi daal moom nga bëgg. ñu bàyyi ko nga xam ne léegi ay loxo président di ca dugal. maanaam coono du ci teg coom voilà comme ni loolu nañ ko fi jëlee ba mu jeex tàkk man ak Baye Djily ñoo ca yam su ma defee lu ma warut a def Baye Djily hmm. na yoon daal sama kaw samay mbokk wax ak ñàkk wax a ci yam su boobu su ma bàyyi ji defee loo xamante nag su dul noonu la da yoon dal ci kawam parce que ah, foofu la Sénégal toll. waaye tant ñi ngi bàyyi di bàyyi bàyyi di xool naan diw lii wala diw diw man la faral diw daf maa contre. Mm-hmm. loolu bu ñu ci bëggee dox rek yi ñuy woote yaakaaruma ne. du am njëriñ parce que da boole ñi la bëgg ak ñi la bañ. jiit moo metti. boo jiitee da ngay xel ak xol bu rafet mais du caa ginne ku la sànni xeer nga geesu for xeer bi delloo ko loolu mm. euh, maanaam ci boo doon am loolu proposé tey waaw xam nga xam nga man loolu yàgg naa ko wax depuis élection yi may wax ni man su ma amee benn requête bu may def mm-hmm. ci ci njiitu réew mi ak gouvernement mooy que ni ci biir prison yi mm-hmm. Mm-hmm. ndax tey boo yàlla dogal na mos ñu fa dem te yàlla na lu um donte na jombut benn benn jaam. nga fa nekk yàlla neen fa yàlla génnee. waaye tey boo seetaanee képp ku fa dem ba génn témoignage yi muy wax ci biir métti yi ñuy dund conditions yi ñuy dundee. condition yi dul sax lu nit mën a accepter. waaw c'est inhumain franchement. donc seen dignité ak seen seen seen seen valeur nañ leen ko gën a joxaat gën a amaat taxawaay ci prison yi waaw mu gën a méngoo ak li nga xamante ne mooy àq ak yelleef doomu aadama parce que bu ñuy wax ñaata nit ñooy nekk ci benn chambre yow tey nit pour nga dem toilette sax dangay ran rang ak ay besoin humain la loolu nit ni mu ni mu mel ci nit pour nga nga dem fa da ran rang wala da ngay. da ngay demander waaw c'est c'est waaw c'est c'est tellement mais da ci yokk tamit les longues détentions préventives maanaam. téye juge mu ko la bokk te déjà il bénéficie de la présomption d'innocence. wallaay maanaam ah. nañu nañu. parce que nit ki tant que jugé guñ ko rek. am na présomption d'innocence loolu c'est la vérité doyen lu am solo nga wax donc nañ ci gën a bàyyi waat xel waaw di gaaw a jugé nit ñi di xam fu ñu féete parce que da gis koo xamante ne day tëdd sax lu ëpp penam waaw très bien gis naa ci ay cas cas yoo bu ñu génnee di def teewalee ñoom maanaam liñ tëdd moo ëpp moo leen àttee li leen du mujj fenn nan leen ay dañ leen di. maanaam déjà ëpp fenn ëpp donc oustaz li ngeen bari wax bari wax yëpp yéen waa Pastef xam naa foofu moom <laughs> dama leen koy yóbbante bu ngeen demee rek ngeen ngeen ngeen ngeen fexe ba du ngeen ko affaire Paa Diakhaté rek exemple la ci wax dëgg yàlla moom loolu moom ci doyul dara parce que Paa Diakhaté tooñ bu tooñoon oustaz doyen bi duñ ko gaaw a liggéey noonu nga ay <laughs> affaire Paa Diakhaté suba on va revenir sur ça waaw bàyyi bu bëgg exemple demain je me demande solennellement waroon na ko wax Fallou wala moo ko doyen demain demain on va parce que parce que moment même le tribunal est en train de euh, sur votre chaîne avec TMS actualité muy TMS actu vraiment ñu débattre en tout cas ça maa ngi leen di féliciter pour la pertinence parce que ensuite débat lii la kenn ku nekk da ngay wax sa xalaat mais tout le temps nga waxaa sa xalaat da ngay maanaam da nga koy argumenté te cela me fait grandement plaisir vraiment euh, ngeen yëkkati image wu émission bi euh, félicitations oustaz euh, félicitations encore à Djili bon léegi nag mes deux caméramans Djili ak bon je vous donne huit sur dix pour le moment le temps que ma xool élément bi merci et bon fin de journée